sama xarit yi tasewaat nañ de wala boog koor sa ni muy fitnaalee malade yi yaay bëgg ko waaye centre bi personnel yee doyul nag bàjjan sax moom def na pexe ba yaay mën a jël magaar ci centre docteur Moulay.
danoo soxla ay relais communautaire nga jàppale sage-femme yi man mii wóoru ma ne mën naa leen amal njariñ de yaay i sa jàng sori na kon doy nga ma man yaay xalaat nga ne mën naa def liggéeyu relais communautaire tulli def ko kaa waaye nag nit dafa lëndam de Korsa am na ñaari problème muy magaar mii dugg ci hôpital bi ak assistant waaye lii dina xumu de xaaral sax ma taal sama rajo déglu épisode bu bees bii c'est la vie à Ratanga cece à Ratanga waaye ku dof
C'est la vie, fii ci Ratanga. Aye, yegg si nga Ratanga. Asetan ci Ratanga, Korsa ci Ratanga. Bajanata leñu dundu Ratanga. Fagaru Morgan Fajo Sawel ku yaram Morgan Fajo Saytu ko ca ba muy fagal Morgan Fajo Fagaru wal na ñëpp Morgan Fajo
fukkeelu épisode ak ñett faju neex naqari tey moom suba teel la benn taxi freiné ci buntu centre de santé wu Ratanga ku góor ak ku jigéen wàcc ci benn militaire jàpp jabar ji muy waaj a am doom ñoom ñaar ñu dugg ci biir centre bi semaine yii yëpp magaar mi ngi def formation ci centre bi ci wetu yaay militaire bi mi ngi dox jëm si ci accueil bi jabar ji di bind rekk mu bett magaar agsi ci moom
lan la lan la lu faj leen sama jabar dafa war a am doom defal ndànk ku jéem a yëngatu rek dama lay rey mi ngi tuur ndox biig ba léegi def nañ tuur hôpital yëpp fu ñu dem rek ñu naan daaf fees kenn mënu koo dimbali loolu yoon la faj leen ko wala ma tiire seen kaw d'accord d'accord calmez-vous dinañ ko faj dafa am kuy am doom bu paree rek ñu dugal ko ci salle de travail militaire bi puus magaar ci saal bu njëkk bi jabar ji topp ci demal def sa accouchement et yow jële sama jabar génn ci biti génn du sage-femme stagiaire la du sage-femme stagiaire la
bu kenn jéem a dugg rek damay tiire fetal seen kaw xamoo leen ma sax
militaire bi poñe yaay yaay puus ko mu bëmax ko mu génn saal bi ñu tëj ko magaar tiit di lox jàkkaarloo ak militaire bi ci biir saal bi
yow looy xaar tëral ko magaar tëral ndaw si bi mu gisee ni biir bi day metti muy wañaaru magaar xool gis deretu ndaw si sot lan la lan la lu tax dangay ji di tuuru xamuma ko de man duma docteur te xamuma lan laay def kon lu tax ngay sol blouse alors bu dara dalee sama jabar wala bébéem ci salle bi ngay des
Korsa mi ngi lekk benn viennoiserie sama buvette mu gis mu lay di waxtaan ak assistant mu gaaw lekk li ci des waaxu dem fekk leen
docteur Moulay docteur Moulay il faut ñu woo police lan la dafa am militaire bu yor fitalam waaw te nee na ku yëngu mu tiire la loolu mooy lan yow li ngay wax dara leeru ci wax ma lu leer ma dégg dafa am militaire bu bëgg ñu accoucher jabaram magaa waaw la jaawaleeg sage-femme bi mi ngi mu tëj ci salle bi Magar mel ne waaw waaw non ça c'est grave ñëw ñëw ñëw mais Magar ça c'est grave bàyyi woon Magar
sëñ bi li ma wax moo am il faut que kenn dimbali ñu du contre yow man duma professionnel mënuma dara ci sa jabar
Magar Magar yaa may dégg ubbi buntu bi
defal lu mu wax su duggul du baax ci sa jabar de Magar yaa may dégg kan la kan la médecin bi la docteur Moulay maa ngi ubbi mais bu defee benn geste ma flingué ko
Magar gaañu woo non tout va bien pour moi Moulay toppatool soxna si xoolal yoo kii sonn na trop hum et yow wàcce sa arme bi waaye vous vous croyez où dinaa wax ci say affaire plus tard
militaire bi gis ni docteur Moulay faalewu ko mu dencaat armam dem taxaw ci wetu docteur Moulay ak magaar bi doon toppatoo jabar bi ndaw si daanaka noo yeetul ci kaw
Magar def nga li la war def nga yëfi mag Magar tu peux être fier de toi hum, mais nag foog nga jàppale ma pour doom ci juddu pare nga pour assister ma je suis prête Très bien. Police a ngi ñëw. soxna si man la docteur Moulay. foog nga am confiance ci man ma mën laa réwle. ah kii poche des os bi dafa dagg. Hein? ndax xam nga kañ la.
jëkkëram nee na démb si guddi la commencé alors foog ñu gaawantu bébé bi nekkatul fu sell. ah damay gaaw wal contraction yi euh, je vois.
Uy. Uy.
doom ju jigéen ju rafet la félicitations
sama jëkkër nag anamu
mi ngi si jàmm di la xaar si couloir bi toppatool sa bébé ndax jox nga ko ween ma defe ne damay xaar meew mi yéeg amuma dara lu mu nàmp yaa ngi juum de loolu laa doon xalaat bi sama taaw juddoo am nga cholestérol ñu gën ko xam si nekk xam naa ne sax am na ay aada yuy bañ ko ko jox liir bi waaye meew bu bari ay dundeef la di vitamine
kon mën naa ko jox ween bi léegi loolu moom yoon la Adja
Korsa moom mi ngi faj ay malaadam mel ni daara xewul ci centre
soxna si am sa médicament yaa ngi nii léegi moom yaa ngi ci jàmm semaine prochaine nga dellu si.
waaw jafe-jafe yi may am pour saw nag oh loolu du dara xoolal dina denc ci nii wala ci lee.
waaw mais mais den naan lu bari rek xoolal su su su tegu rek nga dellu si.
Korsa jox ko loxo sans xool ko puus ko ndànk mu génn saal bi booleeg di xool ki ci topp ak sourire madame Sangaré ah bienvenue madame Sangaré ça va.
mi ngi aju ci xibaar yi ñu may jox rek ah yow xam nga ne xibaar yu baax rek toogal waaw li ma lay njëkk a wax mooy jaasiroo madame Sangaré loolu maa la ko njëkk a xam Korsa docteur Moulay wax na ma ko bu yàgg li ma xamul mooy lim ma fi woowee waaw man dama dégg ni yow mënoo am doom te li ci doy waar mooy sa jëkkër moo feebar lan sama jëkkër c'est pas possible waaw waaw moom la kay ndax gis naa son dossier
non loolu amul comment kay lii mënul nekk kay mooy wax ko ko yaa gën a xam ni du mës a nangu ni moo jaasir te boo amul doom ak moom mm, mën na laa fase de man nag am naa ci pexe xam naa nu ma la mën a dimbalee nan
xanaa nga def insémination
quoi man damay gént wala waaw waaw mooy moyen bu simple te amul ngaañ waaye nag mm, ci sunu biir lay yem duñu def fu nekk ñu wax ko fa xam nga li ma bëgg a wax li ma xam ci nit ci centre bii dafa bari su ma ko defee ñépp xam ko mais kenn du ko yëg nag waaw mën naa def sax insémination bi sa kër loolu nag mm, xaalis bu bari la laaj de
nu muy demee
voilà pour spermatozoïde yi loolu moom sama affaire la sori nga ma Korsa
yaay sama xarit sama man ma teg sama portable.
Corsa yaa jël seringue yu mag yi amatul ci pharmacie bi de.
loo bëgg ma def nag yow mënoo koo commandé xanaa.
yow daal dafa mel ni tey sa xol neexul lu la dal Corsa.
benn xalaat rek laa am mooy Asita je te jure kii dinaa jënd lim may jaay seytaane ba bëgg di topp ci gannaaw mu laay rek di ma komplo.
man yaa ngi mer de lu mu la defatee.
man xamuma moom fu mu teg boppam maak moom nag mënuñoo bokk ngelaw li ci centre bi Aïcha man yibbi naa de. li ma yëg sama yaram moom baaxul.
doo dem ci docteur Moulay mu consulter la.
non non su ma noppala ko rek dina baax. à demain doom day.
waaye da ngay dem. Corsa.
bi Corsa di génn centre bi ci la ñaari auto police freiné brusquement ci parkingu hôpital Corsa di leen xool gis benn militaire bu ñu mënoote ay policier di ko yóbbu docteur Moulay taxaw ci bunt bi di muuñ
bàjjen lépp jeex na ci jàmm police yóbbu na militaire bi centre bi calme na léegi
am naanal doom lii metti na lool medd maa ngi xumb ba dee xale yi wàcc nañu école mag ñaa ngi waaxu di ñibbi taala di dox ci mbedd mi seen emade mu koy xaar ca buntu kër rokk ba mu waaxu daldi laxasoo ak moom emade yaay sama àdduna de xam nga ak sa yaay xam naa yàlla baax na moom ma may li tax ma xam la nga nekk sama jabar dinaa la toppatoo ni mu waree dinaa la aar sama dund gi yëpp dangaa baax rek
non man moom dinaa def lu ma mën ba nga baal ma li tax teelu ma laa yóbbu ci centre bi nga faju
li tax doo décroché qu'est-ce qu'il y a xanaa sa maîtresse bi la waxuma dara ngay ree non sa mère bi laay réer yi soo meree da ngay nice emade mais xoolal man bëgguma gel yow rek xoolal jaral nga maa dëkk ki yem waa emade xam nga li xew ko rek ci maternité ba xaw ma de taala xanaa dafa am ku fa am doom
xam nga ma dee magaar la benn militaire jàpp en otage ne par force dina fexe ba jabaram accouché maga day liggéey ci centre bi waxoo ma ko woon yàggu fa te secret la waa ma ne bëggoo xam li ci topp non magaar du nit jàkkaarloog waa ji militaire baa ngi yor fetal pointé ko ci moom moom rek dawul garde son calme ak ndaw si doon am doom ku nekk ci ginnaaw bunt bi waa eh yaay léegi da ngay taxaw ci ginnaaw bunt yi di yëddu ay waxtaanu jàmbur lii nag moo ci desoon koy sosal yow ah man faalewuma dunduk magaar
maman man xam naa ne doo garder secret kan moo wax magaar man yow nag taala nga bàyyi sa jabar mu may tooñ sama buntu kër ngeen di ma jiiñ yëddu maman baax na man xam naa ne yow doo yàqal magaar n'est-ce pas amu leen benn respect xale yii man ngeen di teg nettalikat man Rokoba allo allo Tulli man la sa bàjjen Rokoba waaw bàjjen ay waaye sama jarbaat bu baax bi déglul ma wax la magaar waxu la dëgg lan waat naa ko daf laa gëmloo ni ca bàjjen lay liggéey mais du dëgg li ngay wax wóor na la ci docteur muy laay lay yendu bis bu ne lan sañul loolu li gën daal defal dara tulli bàyyil ma yóbbu sa jabar ji dëkk ba koñ bi yépp yow la ñuy reye ndax sa jabar respecté wu la jot na nag nga won ko yow yaay kan waaw waaw merci ma tante tey mu xam man maay kan waaw kay waaw kay waaw kay baax na ba beneen yoon
ci biir néegu ndaw si mu dimbali woon ba mu am doom magaar mi ngi nax liir biy jooy bi yaayam di nelaw yaay mi ngi àggali fii si nekkoon ci booru lal bi bébé bi nee na dafa xiif jox ko ween xanaa xamoo cholestérol mooy ngalamu ween yi jox ko biberon sama yaay nee na tànk aw ma meew bu ma ko jox ween xam naa am nañu yaakaar ne cholestérol baaxul ñàkk a xam rek moo tax xalaat yooyu di màgg nit ñi nee nañu nga xaar ba am meew nga jox ko cholestérol bii nag dara gënu ko ci liir man de mësuma gis jigéen juy nàmpal te amul meew sa cholestérol dafa fees ak ay anticorps te daf lay dimbali ci système immunitaire yu bébé bi ngir xeex infection kaay jox ko ween wi noonu la très bien
eh Magar simmil blouse bi te topp ma fenkat bi nga doon.
mais tulli fii du sa kër respecter au moins malade yi jéggalu yaay mais Magar day dem jaaral nii.
ci mbedd mi ci buntu centre bi tulli di reereelu wër oto bi mel ni kuy ubbil magaar bunt bi ndax mbëggeel waaye daf koo bett woñ loxo bi ba max ko ci biir oto bi magaar gëm di lox ci saalu planning familial bi Rachel a ngi toog ci wetu Julien assistant di accueillir benn par benn jeunes yi ñëw ci réunion bi tey moom bari nañu
na ngeen def ah merci ci ni ngeen ñëwee surtout nag ñu bees ñi ku ci am looy laaj est-ce que mën nga ñu jox ay conseil ci avorter sans risque am na sama benn xarit bu doon jéem a avorter boppam mais dafa dee. Mhm. Mhm.
wax nga dëgg ndax jigéen ju nekk war na mën a am sañ-sañ def ci yaramam li mu bëgg te réew mi war na ko may mu tànn ban yoon lay jël ngir wérgu yaramam waaye ci réew yi nga xam ne jigéen ñi amuñu fa yenn droit yi avortement amu fa moo tax ñuy dem ci njabarkat yi walla ñuy def avortement di ko nëbb loolu mën na yàq seen awra ba dootuñu am doom loolu moo tax ngeen war a am information yu baax suñu ci àndee dinañu am solution ñun ñëpp papay Rachel agsi dugg ci saal bi arrêté réunion bi mu xool ñi toog waaxu dem ci Rachel mbéj ko ñépp tiit mu xëcc ko di ko génne saal bi force jëlal say bagage Rachel jëlal sa bagage ñu dem eh jugal sama kanam jënam
jéggalu de waaye su ngeen bëggee mën naa continuer tamit docteur Moulay
yow docteur Moulay na nga fexe surveiller bu baax lii am fii maa ngi nii bàyyi sama liggéey pour jël si sama doom ci seen njuuma bii di wax ni mën na avorter xale yi ak ay bêtises na nga fàtte ndimbal li ak soutien li ci comité de santé bi lii du centre de santé centre de kasara la waaye ñu dem
Korsa ndax dina dem ba sës docteur Moulay nag lan lay xaar waxi sangare nag moom jarul wax xanaa tulli tamit beneen affaire la mook Magar ngir xam liy xew Ratanga dinaa topp épisode bii di ñëw ci C'est la vie adduna moo bari feew waay sa yaatuwaayu ndigg may na ma ma yaakaar ne doom ji suuf lay juddoo waaye nag ah sa tension dafa xaw a yéeg de da nga war a noppalu nag looy liggéey maa ngi jàppale Boubacar bibliothécaire bi ci alphabétisation bi.
C'est la vie di théâtre rajo bu leen raes jagleel ki ko tëggaat te jiite artistes yi di Massamba Gueye ki def réalisation te taataan kaddu yi di Tidiane Thiam script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events